mbokk internet yi ñu ngi leen di leen dalal ci biir limametti point com di leen jaajëfal ci topp bi ngeen ñuy topp ñu daal di ñëwaat ak yéen ci information bi information bi nag ñu ko fa li nga xam ne moom mooy hôpital moo ci am mooy dañu wax ni dafa daal di vidé hôpital bi yëpp maanaam bépp malade bu fa nekk daf ko daal di génnee ngir ñu mën a faj ki nga xam ne moom mooy doomam information boobu nag ki nga xam ne moom mooy Adama Gaye di journaliste moom moo ko daal di posté fi nga xam ne moom mooy compte Facebook am di ñaawlu bu baax jëf jooju moom nag mi ngi ñuy wax ni ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall mi ngi ñëw bu a mat neuf oto ñu daal moom mi ngi sol tout blanc sol li nga xam ne moom mooy maxane bu weex daal di ci wàccee ànd ak ay du corps ñëw daal di vider hôpital bi yépp ngir ñu mën a faj ki nga xam ni moom mooy doomam Adama Gaye nag ñëpp xam nañ ne moom activiste activiste la fi nga xam ne moom mooy Sénégal waaye tamit journaliste la moom moom moo doon dénoncé fee boobu nga xam ne moom moo xew fa li nga xam ne moom mooy hôpital principal moom moo joxe sax information bi fi nga xam ne moom mooy compte Facebook am ñu leen di wax comme toujours ngeen continuer di topp limametti point com ngir am information yi cloche de notification bu leen ko fàtte moo leen di mën a permettre ngeen mën a am xibaar yi foo leen mën ti toll ma leen di jox rendez-vous beneen yoon ci biir limametti point com ak yeneen information